waaw ah, merci beaucoup madame xam nga Sénégal bi ñu bokk ñëpp dañ ko war di pencoo ndax jàmmay lépp jàmm ci la lépp xëcc xam nga Sénégal booy seet quatre-vingt-deux pour cent des Sénégalais ñu ngi dans le secteur informel. Mhm. je pense que bu ñu secteur informel dañuy wax développement. Euh, le secteur secondaire ak tertiaire ñoom ñoo am bloqué presque réew mi am na secteur primaire mais liñ jàpp ñun. état du Sénégal dafa war a gën a protéger les acteurs yi nga xam ne ñuy lal teg ay table ci mbedd bi ñu yor seen cantine ñu yor seen magasin ndax bu problème amee yéen a ngi koy gis ñi ñëpp dañuy ñëw jël table yi ci mbedd yi lakk ko dañ fi sa fekk bagage yi yàq bagage jàmbur yi après finalement day perte léeg-léeg da ngay koy gis sañ bopp coow am am ay saay saay yu dugg ci ay cantine yu di ko dajji di jël ay bagage yu jàmbur loolu tamit ba kañ tu la tuuru te problème bi dafa nekk loo xam ne état bi moo ñu war a protéger mais nu ko lu ñu protéger mooy dama jàpp ne na waxtaan ak les acteurs ou bien les vrais acteurs Sénégal léeg-léeg nu muy doxee. mais mais ñi nekk ci seen secteur bi fan la ñu nekkee ci marché yi wala. non am na ñu bëri ñu nekk si marché yi bien sûr. ok marché yi la ñu nekk tey Sénégal jaayukaay yu bëri marché la léegi vente en ligne léegi la xew.